di saatir du tas yaakaar du daw ku koy laaj bu laaj mu may la nga géejal sëriñ fal lu xar bi mu laaj baytil wilaayati yaa yor fondement ba bu wér sëriñ nga yaa jiite mbooleem ku ñëwal li laaj gaal gaa ngi nii teer ku nekk ba tàdde yaa koy gënal dugg ci gaal sëriñ fal sëriñ fal laa gën a laaj lor dem na teewal yi baawaan du jeex abadan bu sëb bu Sëriñ Fallu teewal war na kon mbooloo mi ñu leen di nuyu leen siyaare ngeen gisee jotaay bii ngeen xam ne ñu ci weer weeru kas rajab moo tax mbooloo mépp daje tey toog nii ñu jël kaddu gi di ko jox Sëriñ Fallu Samb mu wax ci turandoo Sëriñ Fallu yi kon Serigne Fallou bisimilah. asalaamaaleykum mbooloo mi. ñaan yàlla ñu fekk waat di jóge li ñuy war nag turu turu nooy suñu fan yi ñun suñu président de l'ordre mooy Serigne Afia mooy suñu loolu tamit mooy suñu président ñu turu nooy suñu fan yi fii si kër Serigne Afia mooy suñu fan ñaan boobu képp koo xam ne nii am suñ fàllu nga wala nga am bokk suñ fàllu te bëgg koo tàggat aussi ñu lay woo ci jotaay bi ci jàmm ñu ci jàmm di woo góor di woo jigéen di woo mag di woo ndaw te nga xam ne ñoo bokk ñun liggéey bi turu président Modou Sall leer ñoo ngi woo mbay ak Abdoulaye diwoo Serigne Assane Niang diwoo soxna Awa Cheikh Niang diwoo Mame Awa Niang diwoo soxna Rama Gueye diwoo soxna Kabib Niang diwoo soxna Boussa Niang ñoo ngi woo soxna Ndeye Sall mooy maire d'honneur mu yor organisation wàllu waay bi lépp diwoo soxna Mame Daba Seye Darou Mousty moom soxna Jalle Niang ñoo bokk liggéey bi woo soxna Maguette Seye moom soxna Jalle Seye ñoo bokk liggéey bi ñoom itam bi woo soxna Fama Sarr boo soxna Mbiye Niass moom soxna Alassane Samb ak ñoo bokk liggéey bi ñoom ñoom ak ñëpp bi woo soxna Seye bopp di soññ li nga xam ne bés bi. lépp lu baax rek moom lañ jublu di woo góor woo jigéen woo mag woo ndaw. waaw ñoo ngi woo soxna Khady ak ñi mu ànd yëpp ak juge ak mboolem li war kër sa jafe yëpp ñu ngi leen jàppale ci gàncax yeeg ak organisation bi yëpp ñu ngi si woo rek. kon jërëjëf Serigne Fallou yow mi nga xam ne yaa woote si tund Serigne Fallou waxee boobu kon dina jàmm nag kaddu bi jox sëriñ Habibou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite mbooleem turandoo sëriñ Habibou Mbacke yi kon sëriñ Habibou bisimilah. asalaamaaleykum yéen waa Sëriñ Mbacke ci tuuru sëriñ Habibou yi mooy joxoon ndigal su sampoon fi daayira turandoo sëriñ Habibou yi ñu ngi woote képp koo xam ne bàyyi wu si kenn képp koo xam ne ñu ci kon ñu bis kon dañuy jàll kàddu gi rek jox Serigne Mamour Sarr bu ko defee mu wax ci alxuraan ji Serigne Mamour Sarr nii moo ko yor bu ko defee dañ jox rek mu yëkkati si kàddu sëñ Mamour. bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. yéen a mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di siyaare baax a baax di leen nuyoo fi ngeen baaxoo nuyoo muy bàq bu sell bi ci kër suñu sang bu baax mi Sëriñ Abdoulahi Mbacke moom Sëriñ Abdoul Fadil Mbacke bu ñu tax nag yëkkati suñu kàddu ñu ngi koy jëlee ci ndax buñ ne màggal jotaayu sëriñ bi mooy njàngu alxuraanul karim kon ñu ngi koy ñi njëkk a mooy ñi nga xam ne ñooy waa rabitatul madaaris alxuraaniyya fu ñu nekk ci bokki façon bi yoo koy Sénégal ñu ngi luñ ci waay man ci wàcc ay kaamil nañ ko def bu loolu jarati ñu ngi woo daara yi nga xam ne ñoo bokk ñoom nit ñoo bokk ñoom nit ñi leen fàttali loo xam ne fàttali ñu woon kon ñun fàttali dafa mën a ñàkk rek waaye nag lii ñu leen di fàttali sax ñoom xëy na du ñu du ñëpp seen xol waaye nag ñu leen bu baax ñu ngi koy yëgal daara sëriñ Sidi Niang nekk fii di kenn ci sëriñ bi ak sëriñ Cheikhouna Niang moom it di kenn ci sëriñ bi ak maam sëriñ Diak ak sëriñ Mamadou Amine Niang ak ak sëriñ Djidi Niang ak sëriñ suñu sëriñ ak sëriñ Ahmadou Sy ak sëriñ Assane Ndiaye ak sëñ Moussa Dia ñooñu ñëpp di ay kenn ku ci ne ay daara ñu ngi leen koy fàttali ci bu ci waay jàng ñu fexe ba jot ci ak yeneen daara yi nga xam ne ñu ngi wër xaj na dañoo dañu ko lim doo matal moo tax ñu njëkk ñii rek waaye bépp daara bu alxuraan di nekk ci kër ñi ak lu ko wër ak li kër ñi bu déggee suñu bi eh, ñu koy tàllal loxo muy ndax eh, ñaan goo xam ne Cheikh Mamadou Fadil Mbacke lañ koy defal loolu moom lu ci waaye mën na ko def ndax sàngu sàngu del si la rek sàngu del si la ci yow la ndax ñaan boo ko ñaan yaakaar naa da nga da nga amaat bu mu ko kon nag ñu leen koy fàttale bu baax a baax bu loolu jàllee dañ ñu ngi jàllale wàllu kàddu ak Serigne Massamba Lo mi nga xam ne moo yor mooy coordonnateur euh, daay ci euh, daayira bi ci kër yi nga xam ne dañ ko daan dalal comme nañ ko daan defee nga xam ne bu màggal gi ñëwee danañ génn seen kër yi da da jox ko gan yi nee na loolu mi ngi koy fàttale bu baax a baax léegi nag ki mu ci jiital nag Serigne Mamadou Moufla Lo ak Baye Dame Dia ak Baye Ngar Diop ak sëñ Mor Diaw ak Serigne Dame Diop ak Ousseynou Diop ak Yande Yande ak Soxna Fatou Niang ak Soxna Khady Ndiaye ak sëñ Mor Diomaxa euh, ak euh, sëñ Abdou Karim Niang ak Serigne Djili Niang ñu ngi jégg lu baax ñooñu sax jël mën a njëkk ndax ñooñu aj moom jot dañ génn seen kër yi jox ko gan yi kon nag nee ñu ngi leen di fàttali di feddale loolu bu baax a baax ñu ngi jégg lu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf Serigne Mamour Sarr kàddu yi am na solo matale na ndax bis bi li njëkk mooy alxuraan ba weer wi ba tey waa daayira bi ñu ngi jàng ay xasiyaay di ko teeroo weer kon ñu ngi siyaare Serigne Cheikh naa ñang mi nga xam ne sa tëb Cheikh Moudou Fadima ñang la ak Cheikh Abdoulaye ñu bokk liggéey bi lépp rafet kon dañuy jël kàddu gi jox ko Serigne Moudou Sow bu Mbàkke Bawol sëñ Nourou bisimilah. nga xam ne yéen laa bokk ak kër sëñ Fallou yéen ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis màgg bi bisab sëñ Fallou Mbacke rawatina yi nga xamante jiite leen yéen ñëpp maa leen woo ngeen pasteefu ngeen pasteefu woon daaw ngeen yokk ko ren ngeen gën a góorgóorlu ndax màgg bi ñëw na ba pare te amuñu leen bisab sëñ Fallou. kon nañ gën a góorgóorlu di yokk suñ positif luñ mënoon daaw ñu man lu ko ëpp ren moom laa leen di ñaan ci barkeb Sëñ Fallu ak yéen waa yi ñëpp ñu gën a góorgóorlu mu màggal gi mel daaw mel lu ko naw rek lu ko naw ren ci barke Sëñ Fallu loolu daal laa leen di leen yëgal wasalaamualeykum wa rahmatullahi xam ne ma nga Mbàkke di wékku ci sëriñ bi dafa liggéey liggéey bu am solo ànd ak daayira bii nga xam ne moo nekk ci Touba Serigne Moussa jiite ko ngeen di liggéey liggéey bu rafet bu am solo kon ñi ngi ñaan suñu borom bàyyi ñu fa bañ yegg ci bis bi bu barke Cheikhul Khadim kon dañu jox Serigne Fallou Seye lii ko sëñ Tuubaa def muy Tuubaa ci kanam ñoo ko ñaan ñu ko bëggee am na ko suñ suñ suñu ak fanam bu ko yaram moom def ko ñu ko bëggee ak sëñ Tuubaa ndax man dañuy woote woote fu gàtt rek ci turu day def mën a defee sa xane fii ci Tuubaa ci ñeent ci pàpp ak Fall di fi màggal xasara yow ñoo ci woote bi ñëpp adduna ñu ko am defee rek màggal ko leen def daal màggale di ñaan ñu lépp loo def na ko ci suñu borom na ko ñëw ndax sëñ Fall kat dafa nekk lu neex a jëfal ndax maanaam ñen wut ak pay la fa ñen ñen wut ba pay dafa moom naa lu neex a jëfal la da moom la waykat bi di wax naan ko kaasi bu bëgg leer mbandik leer bu di naag mbandik naan gay na jaay bu di kooku jàpp naa ne ku a jëfal la borom ak fay la itam kon naa ngi woo sama mbokk yëpp ak bi itam nga laxasaay war bu baax a baax sa liggéey gën a jëf xam ne lépp li ñuy weesu bopp dara li ñuy dëng mën mooy lépp mooy bisu màggal bi kon ñun ko daan defee da bañ ca taay ndax képp kuy liggéey seen Tuubaa laxasaay bu baax a baax dañ jëf nañ ko daan defee bu baax a baax da gën a yokk suñu loxo te xam ne que lii ñun moom la ñu am bis bii ñun moom la ñu am ñun bu baax suñu bu baax a baax ñu gën cee pasif bu baax a baax di ñaan lépp loo xam ne def nañ ko ci itam suñu fan nangu ñu ko da def defal ñu ko suñu misal xanaat bàkk Serigne Touba ñoo ngi woon ñëpp bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi woon ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi ngi doon woote ci daayira yi nga xam ne buñ ne suba la ñooy jël ñooy jébbale si fii seen ab liggéey ñoo ngi woo bépp daayira boo xam ne buñ ne suba la bis bi nga fi daan ñëw daan jébbale sa liggéey ñoo ngi lay xamal ne la bis boobu la daan kon Serigne Fatou jërëjëf kon dañuy jox Cheikh bu ko defee mu wax ci waa kër Cheikh Moudou Fadio Mañane Cheikh Abdoulaye bisimilah. maa ngi ñaan ci kàttanu suñu borom ci daraja Sëriñ Tuuba suñu ñu taxaw ba si yàlla ko fi yàlla yàggal. tam du fan lool. ci liñ ko tuddee Sëriñ Tuuba ñu def ko ko bëgg. ñu ñaanal Sëriñ Cheikh bi am fa suñu bon fànn yàlla ko fi yàlla yàggal te gërëm di ñaan ci kàttanu suñu borom Sëriñ Abibu Fall mi nga xam ne moom lañ nekk fii ci këram yàlla ko fi yàlla yàggal ba li mu bëgg liggéey Sëriñ Fall mu def ko ni mu ko bëggee di ñaan ci kàttanu suñu borom ci daraja Sëriñ Tuuba waaye daal yéen ñi nga xam ne mooy mooy ànd ci liggéey ak seen fan yàlla na yàgg def ci at yu bëree bëri ci barke alxuraanul karim di woote ci ci turu kër Serigne Modou Fadilou bépp sët boo xam ne yaa ngi nekk biir kër gi ñu ngi lay woo ci màggalu Serigne Fallou mu ngi tàmbalee ci Serigne dëkk moom Serigne Mame Thierno mi xam ne mooy président waa sëti kër Serigne Modou Fadilou nekk yëpp di ko tàmbalee. ki njëkk ci kër Serigne Touba waaye yàlla dogal na ñun suñu abibu sëñ Fallou mooy suñu bëgg kon nag ci ëtt bi ndax ñun ñoo waroon a teral gan yi di leen maa ngi soññee ñu bàyyi dëkk bi nga moo jiite di président képp koo xam ne bokk nga ci daayira bi lii boo ko déggee mooy sax soññi ñu ngi mag ndaw jigéen ñëpp ñu ngi leen woo asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Cheikh Abdou Lahad ñoo ngi lay sant bu baax ci kàddu yi woote bi matale na ñu ngi doon woo waa kër Cheikh Moudou Fa Jamañang ku ne xam na seen mbir ci kër gii ak ci bis bi ñun nag bis bii lañ am ku ñu lebaloon ci ñuy fay kon dañu jox kàddu gi Serigne Modou Sall mi nga xam ne mooy président bi mbooloo mi def ko ca kanam dañ cee liggéey liggéey bu rafet kon sëñ Modou bisimilah. jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ko ñëpp waxee rek bis bi bisub Serigne Fallou la waaye bis bi itam ñu woo mboolem ñi nga xamante ni ay taalibe ay soppe ak mboolem koo xam ne sa bopp seen Fallou bis bi nag nañ ko daan baaxoo di ko def rek noonu lañ koy defee buñ xëyee danañ jàng alxuraan ak xasida ci njiitum sëriñ Cheikh naa ñaan mu jiite lépp lu ci waay jàng ci alxuraan ak xasida nga jox ko bi ba ñu génnee ci màggalam daaw ba fii ñu koy waxtu bu nekk ñuy jàng nit bu tàkk ci day xasida ngir di ko waajale bis bi di ko gàttaloo bisu sëñ Fall ndax la waaye bu ñu yeggee tam bis la itam bu ñu jàngee alxuraan danañ bernde ak mboolem ñi nga xamante ni bii ñooy ñëw ci bisu Serigne Fallou lii ak di fekk Serigne Abdou Mbacke mu Cheikh Mamadou Fadal programme bi nag bu ñu dee suba la bi incha allah boo nekk ci njiitu oustaz Ndaw bi yi nga xam ñoo nekk ci biir ko wër danañ jébbale seen liggéey bu ñeenti waxtu jotee la ñuy jébbale ci teewaayu Serigne bu ñu bu ñu fanaanee guddi gi sëriñ bi dana génn bu bët di set waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne ñoo taalibe yi ak soxna yi ak wëllëg yi di soññ mboolem ñu nekk biir dëkk ak ñu nekk ci biti fàttewuñu ñu nekk Dakar fàttewuñu ñu nekk Louga ñu nekk Thiès ñu nekk Mbour fàttewuñu ñu nekk Colobane bàyyiwuñu kenn ak mboolem ñi nga xam ne bii soppe nañ ay taalibe ak wëllëg day ñëw ci bisu sëriñ Fallu yi kon mbokk yi ñu xam ne bis bisu sëriñ Fallu lépp loo xamante ni na kanamam mën na ginnaawam ñaan bés bi yàlla nañ ko fekkee ak jàmm yegg ci ak jàmm te lépp luñ ci ñaan ak lépp luñ ci fas ci lu baax yàlla ko Serigne Touba dégg ñu daje gërëm la ci barkeb xaaral moom bisimilah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa a jërëjëf Serigne Mourou Sall kaddu yi am na solo matale na kon képp koo xam ne nii yaa ngi ñuy dégg ñu ngi lay woo ci bis bu ci la ñuy fayoo ci la ñuy leblee muy Serigne Fall bis nag bu ñu xëyee danañ njëkkee njàngam alxuraan mi si njiital sëñ Cheikh naa ñan bu ñu demee ba deux heures ñu bernde bu ñu demaatee fu guddi kuréel yi ñooy jàng ba deux heures ci guddi Serigne Cheikh naa laam mooy jàng première heure bi Serigne Ndiap mbay mooy fanaanee guddi gi kon ñoo ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn Serigne Habibou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér jërë